wa ma ana minal musrikin mu ne man mus du ma bokk ci ñi nga xam ne dañuy bokkaale yàlla kon loolu bépp jullit yàlla subhanahu wa daf ñëw daf la la daf la sas ne nga taxaw ci loolu te mooy daaw ilallah d'accord léegi li ma la bëgg laaj mooy sànq dañu gis ni nga xamante ni ñooy collectif euh, des talibé Cheikh international ñoom nee li liñ ci li leen ci gën a bégloo mooy oustaz jégalu na publiquement jégalu na ñaar ba ñett ba ñeent yoon loolu la nga si wax alhamdulilah loolu seen interprétation la la ñoom ci seen bopp ustaas bi muy wax ñëpp a ngi ci saal bi dañ ko wax loo xam ne lii indaale ko muy audio yoo xam ne booba moom jeune la gone la te at yooyu boobaak léegi mat na vingt ans diggante boobu loi Sénégal du ko jàppe kenn mu ne bu dee loola ma doon wax ci ndaw loolu moom ku mu laal maa ngi lay ba maa ngi lay jéggalu lii mu wax nag la mu waxoon la waxaat bu de audio bu mujj bii la mu waxoon la waxaat nee na laaluma ci turu kenn tudduma wasifa tudduma xadara tudduma kenn te li ma wax leeral na ko te yow mbokk dugal internet di nga gis ñoo allah allah di di di baaje ñooñu est-ce que fii lañ dëkk ci yeneen réew ak yeneen réew mhm. dëgg nag moom dafa neexul yow nag léegi su fekkee ne yow da ngaa aj da ngay bañ ku séentu problème bi yëpp loolu la ku aj bëggul ku kuy xaseen sax bëleem parce que da man lay kii mais moom tuddul tur kenn loolu it nag jéggalu ko de na leer loolu jéggaluwu ko la mu jéggalul mooy la nga xam ne defoon na ko vingt ans ci ginnaaw loolu la ne ku mu laal maa ngi lay jéggalu yéen ñëpp a ngi fa woon ku ne ngi fi journaliste ñoo gënoon a yegee ñëpp lii moo am bu ñu waxee leneen nag wax ko ci ay ku nekk mën nga wax lu la neex mais li am mooy lool. nga baal ma mais. ndax damay déggee ni. waaw discours bi mu doon tenir. waaw euh, ba mbir mi egsi fii ndax lay continuer di tenir même discours loolu dafay changer. jëktur bi mu bi mu mujjee nii. boobu day avancer. mais ba woon ne ci ay vingt ans. Mm. boobu du dem. mais bu continuer di defaat loolu. plainte yi di ñëwaat est-ce que du mujj fu ñu fu ñu fu ñu. di defaat lan. par exemple di wax te tooñ te tuddul kenn. waaw mais moom dafa nekk sursis. dafa nekk sursis mais lañ ko lañ ko condamné lañ ko condamné mooy la war a teg vingt ans même bu nekkee sursis bu waxee lam lam mujj a wax kenn mënu ci mënalu ko ci dara loolu moom yéen a ngi ci réew mi lañ dëkk ñun ñëpp xam nañ lu wax tudduma kenn tudduma diine kenn ñu ne lalu bul waxati loolu parce que daa ni roog li ñuy def loolu kenn du ci jàpp nit justice bi waaw waaw waaw kenn topp la ci. ñu ngi doon waaw mu tudd waaw. mu tudd. waaw maa ngi siy jégalu. Mhm. te te ñun sax ahlu cheikh boobu. waaw ñu ngi siy jégalu képp kuy taalibe cheikh. Mhm. parce que warul woon tudd tur diw mais wax na ni jamonoy ndaw moo ko yóbbi loolu mhm. mais kantaa mu toog mu ni saxaaba yi mosuñu sànni benn affaire. di wax allah allah noonu la ko répété si kanam juge bi te loolu day continuer incha allah mais nag turu Cheikh Tidiane bi ñu ngi si jéggulu ñëpp parce que audio boobu sax dégg nga bi lu mu hmm. jël audio boo xam ne c'est quatre-vingt-sept ou quatre vingt ci biir benn plainte boo xam ne hmm. bi oustaz defee loolu ñu jël ko bërxal pour hmm. seen karwaas gën a dal juge bi topp ko ci loolu même ñi nga xam ne ñoo ko doon jugé wax na ni lii warul woon ñëw parce que lii la lii la leneen leneen la mais ñoom gannaaw lii mënuñu am argument dëgër yu ñu téye il faut ñu jël ay mbir mais yéen ñëpp yéen ñëpp gis ngeen xam ngeen ni lii oustaz wax dina la diine ji ñun ñoo ko bokk mhm. nit amul benn droit fekk lu ñëpp bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne al yawma akmaltu lakum diinakum diina ji mat na sëkk nga dem indi seen mbir nit si sërëx après nga ni bu ko kenn tudd bokk subhanallah lii ban dëkk la yonent bi wax man amala ma ah, ah, man man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amaluna fa huwa rad léegi nag dañu toog di xooli nii rek diine gi dañ koy bàyyi nii lu waaye neex rek mu dugal si mbokk dañ koy kii leen daal am na moom mais justement est-ce que bi euh, yéen da ngeen jàpp ni fii ci Sénégal yéen ñu ko war a réglementé yéen non jàpp ñu loolu par lañ ci am rek yow mi am nga ci part mhm. kii am na ci part kii am na ci part képp koo xam ne gis nga loo xam ni bokk ci diine ñi dugg ko ñeme nga waxal ñeme woo demal toog mais daal xam naa ne charge la ci yow jukk la ci yow melokaan la ci yow cër la ci yow nga wax lii bokk ci na nga koy waxee nag yaa ko xam mm-hmm. bu la neexee xatraayul bu la neexee kiiwal waaye kenn ku ne si ñun war nga gis lu bokkul si diine nga ñu lii bokku ci am pay am am payu yàlla donte nag a wa taala digle nañu diinam ji nañ ko ko sàmmal parce que yeneen dootul ñëw gannaaw Muhammad mm-hmm. léegi ñan ñoo fi nekk pour seetal diine ji mooy jullit ñi borom xam-xam yi bokk nga ci man bokk na ci gis boo gis am ci masala boo si mën tontu waxal lii bokk ci rek après nga dem si woon mm-hmm. mais ñu tëj gémmiñu ñëpp nopp d'accord xam naa waaw beneen mooy moom bu ñu comprendre question bu baax. moom day poser day poser question boo xamante ni nee na ndaw ustaaf lu mu doon daawa bu njëkk. dina ci changer dara. gis nga daaw sunna alayhi salaatu wasalaam ustaaf du fi dindi virgule parce que yónnee salaam moo ko jàngale te loolu lay wax moom la tudd tur kenn. dafa yàlla dafa wax yonent bi salaa salaam lii daaw woon def te li ngay posé question bi ngay posé du si en bu toogoon tey di defaat dara day toog mu ne yonent bi salaa salaam lii daaw woon def daaw woon def parce que du si en arrière parce que loolu moo am kantaa yi nga koy toppee ay 97 lool nee na fukk jeunesse moo ko yóbboon te âge de 25 ans la ko defee woon bu dee laal na seen pas-pas si wàllu lool ba mu leen metti mu ngi jégalu moom si loolu la jégalu mais jégalul. ci tafsir bu mu def Castor fii mu ne am na ñoo xamante ni dañuy toog benn affaire di wax allah allah allah loolu yonent bi sallallahu alayhi daaw ko def lool daw ci dara tey la ko gën a mën saxal te bi iznillah laa nga koy defaat tey la ko a mën sax parce que du tur kenn lii yonent bi defu ko yonent bi defu ko ku mu naqari nag yow balaa ngay teel a nit dara mais indi agrément nga lii yonent sallallahu alayhi wasallam def na ko loolu mooy loolu mooy loolu mooy loolu mooy xam-xam man soo ma waxee fi xam-xam da ngay ñëw tontu ma ci xam-xam mais doo jël ay plainte di ko moom am na ñu koy saaga fi am na loo ko loo ko lu nekk lañ koy wax traité lu ko ne lu ko neex mais ñoom mosu porté plainte kenn am na ñu nekk Sénégal bi wax nañ lu gën a pire loolu te porté wuñ leen plainte pourquoi porté wuñ leen plainte kon équilibre moo fa amul par parloo moo fi am ah kon dañuy jël ñuy woote sunna ñu leen di plainte ñu ñu woote sunna mun nañu wax fi mun nañu wax si tarixa yeneen wax te ñoom duñ leen porté plainte kon affaire bi xam nga amul amul équilibre. am salaamaaleykum wa rahmatullah xam naa man li ma ci leeral rek mooy ci wàllu médiation bi nga xam ne ñun ñoo ko doon def eh, man naa wax ne eh, bi ngeen doon dégg ci réseaux sociaux yooyu yëpp ñun ñoo njëkk a jël suñu téléphone eh, en tant que ci fédération national nga xam ne moo ëmb sëriñ daara yi nekk Sénégal yëpp man ma nekk président bi nga xam ne nii mooy ci wàllu. Euh, li ñuy wax si xadaay mooy wàllu justice ak sëriñ daara yi man maay président bi sëriñ Jili Mbay xaadimul Quraan léegi bi loolu amee en tant que nag ci fédération bi droit la comme ni ma koy defee ci sëriñ daara yëpp te avocat yu bari macha allah dañu ci jàppale. ah ma jël sama téléphone daa di woo Makhtar Sarr waaw ne ko man de mbirum Omar Sarr moo taxoon ma doon la woo waaw. waaw li ma la li ma la ciy laaj nag mooy ndax ñi ko porte plainte xam nga leen mu ne wax dëgg yàlla xaw ma leen donte ci réseaux sociaux am na ñoo xam ne nii jàpp na ne man ci laa bokk Makhtar Sarr ne ma ñoon donte ñu bari defe ne ne man ci laa bokk waaye ba léegi fii may waxe yow xaw ma leen ma ne ko man dama lay woo en tant que jullit ak morom ma mooy lan mooy ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee seen mbokk jullit buñ ko tooñee bu tooñee dimbale leen ko kon nag dama bëgg ñu dox ci te yàlla tax bu ko defee man ñi nga xam ne nii ñoo ko porte plainte man su ma leen mënee xam mu ne ma danaa la ko gëstu léegi bu soobi yàlla bi ñu toogee ab diir ci la ci la ma woowaat daadi di jox ma numéro ku ñuy wax Cheikh Guèye mu ne moo leen nekkal fii ci Sénégal parce que mbir mi international la ne ma wax ne ma ak moom léegi yow ni nga waxee man waxee ko ak moom man ma jël sama téléphone woo Cheikh Gueye ñi waxtaan bi ñu waxee ba pare wax dëgg yàlla mu ne bu soobee yàlla danaa la wuyu ci ci woote bi nga xam ne yaa ngi koy yaa ngi woote en tant que morom ma waaye comme du mbir mi du man dong dañ maa jiital fii rek may ma tuuti bi ma ko maye ñu toog ab diir mu daal di woo ma ne ma léegi ki nga xam ne moo leen toogal international ñu koy wax alhaaji malik Diouf mu ne ma waxtaan naa moom léegi yow woo ko nga wax ak moom ma jël sama téléphone woo ko bi ma ko woowee wax dëgg yàlla wax moom ba pare ah mu xamal ma ne ma yow de wax dëgg yàlla ni nga waxee nii de incha allah da nga xam ne ñu nit ay jullit lañ dinañ la wuy ci gàttal loolu ci la ñu waxtaan ñoom nee na ma ba ba ba jàpp dab ne ma suba nañ dajee ca 16 ba muy point 1 waaw léegi nag man ti ma daal di woo muy Cheikh Ibrahima Kébé mii nga xam ne mooy président fédération fii euh, Tëngéej léegi moo woo ko woo imam Babacar woo ah euh, euh, sambu Samb menn léegi pour ñu war a dem li nga xam ne moo tax ñun maanaam ñëw demuñu demuñu ca ndaje ma mooy biñ demee ba jóg pour dem maxtaar dafa sàkku koo xam ne nii dafa bokk ci rakkam wala magam mu Omar Sarr pour mu bokk ci ndaje bi léegi nag bi amee nag léegi ñu jokkoo ak maanaam rakkam mu xamal ne moom ka dafa ñaar eh, permis ba mu ngi nii di seetaani di di seeti Omar léegi mënu ko cee wax dara en tant que Omar di ko di muy gisante ak Omar. d'accord waaw loolu daal ci gàttal mooy mooy moo moo ñu tënk ba ñun jotuñoo kii ba waaye bi nga xamee ñoom dajee nañ ba waxtaan ba tënk ba ne bu ñu xëyee danañ rocc pelante bi ah def nañ ma main libre sax woo ma man it ma wax léegi bi ñu ko génnee ci la ko eh, eh, Maxtaar posté ci page Facebook am. léegi am am ñu commencé nag maanaam di euh, wax lu leen neex wane na maanaam ñun kenn yónni wuñu mel noonu déedéet ñun kenn yónni wuñu yàlla moo ñu yónni akom yónnentam d'accord ginnaaw intervention yi nga xamante ni def ngeen ko euh, mbir mi mujjee fii ak euh, daan yi nga xamante ni moom lañ teg suñu ndoddam ban gis-gis nga ci am waaw gis-gis nga am ci daan yu teg si ndoddam maanaam si mois assorti ah non gis-gis ma ci am mooy ala kulli xaal lii lii moo war am Omar it dañ koy sant di ko gërëm parce wax dëgg yàlla ni mu waxee macha allah ndax gis ngeen mbooloo mi topp ci gannaawam waaw kon Sénégal jàmm rek moo fi xaj waaw ala kulli xaal il faut ñu naan yàlla nee na yonent bi loolu moom kenn mënu ko fee dindi te gis nga xeeti wax yii nii wax yii ga xam ne moom lañ ko kii yàgg na fi yàgg na fi kenn mënu ko fee dindi waaw man dama jàppoon ne fi ni nii en tant que ñun jullit ci beneen dimension lañ waroon ne tey maanaam ñu dul julli ñu ngi maanaam waaw da ngay ñoo xam ne nii tey duñu ay ñi nga xam duñu ay jullit ñoo ñoo gën a bari ay wuute fuuf te bu ñu waree xeex dara dañuy booloo ñoom mel ni koo xam ne nii amuñu benn wuute ñun nag dafa mel ni ba léegi maanaam loolu tollaguñ tollaguñ folo tollaguñ foofu waaw waaw macha allah